comité départemental de sélection des sous-projets yi nga xamante ne bii dañ leen war a financer ci projet bii ñu tuddee paysan mooy projet d'intensification de euh, l'agriculture écosouveraine de ñaay loolu tey jii moo ñu fi dajale muy liggéey boo xamante ne nag euh, techniciens yi liggéey nañ ci lu am solo ca dossier ya nañ ko doon dajalee ak it nañ ko liggéeyee ba tey jii ñu mën ko proposer au comité mi nga xamante ne bii valide na ko ñu leen ciy gërëm bu baax mais may gërëm aussi le coordonnateur du piesan monsieur Tanor Meïssa Dieng ak mboolem ñu mu àndal ci tànn gi ñu tànn Tivaouane yaakaar naa ne ñetti at ngi nii dañ naan ñoom Tivaouane la ñuy tànn pour mën ko tëjee lépp loo xamante ne bii mooy comité yi ñu def ci yeneen département yi pour def fi un peu communication loolu ñun loolu am na solo lool ci ñun waaye day firi également ne xam nañu taxawaayu Tivaouane ak Tivaouane li mu tekki aussi rawatina ci wàllu mbay rawatina ci wàllu maraîchage donc loolu am na solo mais wax na tamit projet la boo xam ne bii ñun bu ñuy encouragé la bu ñu rafetlu la ndax dafa fekk li nga xamante ne bii mooy tawat. yi baykat yi am fii ci département bi mu ne da ci indi ay saafara tawat yooyu bëri na waaye bokk na ci wàllu financement ndax bëri na ay jeunes yu am ay projet mais amuñu financement kon paysan dafa ñëw ne moom dafay jàpp ci financement bi loolu du lu am solo beneen tawat bi muy tawat ju métti ju yaatu muy lan muy fexe ba baykat yi am ay ay ay maanaam fu ñuy denc seen mbay ak fu ñu koy conserver ba du yàqu mooy ay chambre froide wala ay magasin de stockage loolu tamit dafa nekk lu am solo beneen taxawaay bi tamit mooy wàllu euh, wàllu conseil wàllu transformation nan la ñuy fexee ba li nga xamante ne bii moom la ñuy bay ñu mën koy transformer carotte bi mën nañ ko transformer mango ji mën nañ ko transformer leneen lépp mën nañ ko transformer donc pour wax dëgg ne projet bu am solo la leneen li feeñ aussi ci waxtaan wi mooy euh, boo dee xool ñi soxla financement bi bari nañ maanaam kon mën na ne liñ naan demande bi dafa bari ba ëpp na sax xëy na doolewu projet bi ndax tey jii bi ñu ko doon xool rek tey jii demande yi ñu jot ak li jàll li projet bi mën a financé boo ko dee xool day mel ne bu deen téeméer la fukk ak ñett rek ñoo ci jàll kon day loolu day wane ne projet bi dëgg la am na fu mën a yem mais demande bi mu ngi fi yaatu na kon ñun bu ñu doon def day tey ji recommandation dañ naan na ñu fexe gën a yokkaat doole projet bi yokkaat financement yi budget bi ba ñu gën a mën a euh, financer ay ay sous projet leneen li ñu feeñ tam mooy maraîchage bi bu ko kenn rek yemaleeti ci zone des Niayes ndax projet bi bi ñëwee dafa ciblé ay communes lu tolloog sept commune yaakaar naa waaye ci biir demande yi ñu jot am na ci lu tolloog téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari demande hmm. yoo xamante ne bii mën naa ne mi ngi jóge ci yeneen communes yi am na yu jóge ba ci biir biir Kayoor ay Mérina Dakhar rek yu bëree bëri loolu day jàngat la hmm. boo xam ne ñuy wan ne bu ñu yemale rek financement yi ci zone yooyu waaye maraîchage léegi fépp lañ koy defee maa ngi leen wax sànq ne journée de l'arbre bi ñu ko defee Mérina Dakhar ci dëkk bu ñuy wax ndeer naar mais ñi ngi tànn benn tool boo xam ne benn jeune moo ko def ci fonds propre am ci initiative propre di fa def maraîchage di fa def agriculture te kooku amagul ndox amul leneen kon ku wane ne war nañ mën a fexe aussi nan lañ mën a yaatale heureusement wax nga ne deuxième phase bi déjà sóoraale ngeen ngeen mën a dugal yeneen zone yi nga xamante ne bii nekkul ci zone des Niayes kon muy lu am am solo bu baax a baax di wax ne tamit li ñu jàngat tam mooy place su jigéen ñi ci biir projet bi mën naa ne soo dee xool ci demande yi ñuy jàllale bu doonte ne téeméer la jigéen ñi ñaar fukk ak juróom ñett rek lañ ci am loolu na mën dama jàpp ne euh, maanaam méngoowul ak taxawaayu jigéen ñi ci wàllu mbay fii ci département de Tivaouane ndax xam nañ ne jigéen ñi Eh, kenn mënu leen boo demee gi tool yi ñoom nga fay fekk kon nag bu fekkente ne am nañu eh, eh, maanaam cër bu toll nii am na lu luñ ci war a mën jàngat est-ce que du ñoom suuf bi ñu war a am est-ce que ñu ngi koy am parce que paysan boo amul suuf soo moom wala boo mën a teg baaram ah doo mën a am financement kon nañu xoolaat si la wax naa ko ci maire yi nañu xoolaat nu ñu gën a mën a jàppalee jigéen ñi pour ñu mën a am jot ci suuf yi pour mën a mën a béy comme ñëpp ndax xam nañ seen seen njàmbarte loolu laa bëggoon wax di jeexale ci ne nañuy xalaat tamit projet yi ñu financé naka lañ leen di gunge ba ñu mën a def résultat waaye tam ba gi sax bu ñu béyee ba noppi produit bañ bay naka la ñu fexe ba du yàqu seen loxo loolu itam yaakaar naa ne war nañ ci leen di gunge bu bu baax a baax di wax tamit ne ñi nga xamante ne tamit dañoo am financement ak paysan dafa am ay engagement loo xam ne bi paysan da ko warlu ak ñoom waaye tam am na tam ñoom loo xam ne dafa leen war ñoom it seen engagement yooyu tamit nañ ci góor góorlu ba dara du ca sooxe loolu mooy tax tamit ah eh, yëf yi dox te kenn du lor sa morom waaye bu fekkee aussi dañuy engagé wu paysan engagé ba pare promoteur bi wala borom projet bi la mu doon def eh, du ko matale hmm. loolu it dafay indi ay jafe-jafe loolu maa ngi leen ciy ñaax di leen ci soññi bu baax a baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp. organisation lay laaj si avec les agriculteurs ñoo ngi àndandoo ñoom ak euh, coopérative yi ñu jéem a seet ànd nu ñuy fexe ba yombal njaay moom dëgg la ni tey ji mën ngaa récolter sa morom récolter récolte bi bari ci dëkk bi bis bu ngeen duggee ci marché bi prix yi day daal di kon pour ñu mën a Euh, fexe ba lu mel noonu bañ leen a daal ñu ni nañu seet ay magasin de stockage moo tax ren projet paysan dafa teel a dem sax waxtaan ak le marché d'intérêt national am na société bu fa ne ñu tuddee ko société d'exploitation du marché d'intérêt national et de la gare des gros euh, porteur noonu lañ ko tuddee ba ñu waxtaanee ñoom ak coopérative yi ñu signé ak ñoom benn convention xamal leen ni leen ñëw bëgg suñu coopérative saa bu ñu récolté te mënaguñ koo jaay ñu ñëw ngeen wutal leen ay chambre fois ci seen chambre froide yi ñu ñëw daal di koy denc foofu waaye nag buñ ko fa dencee ana lu ñuy yor ci xaalis ngir mën a dund en attendant prix yi doon prix yu intéressant ñu ni loolu kon daañu waxtaan ak ñoom ñu seet ana yoon wu ñuy jaar yoon woowu moo nekkoon euh, le système de récépissé l'entrepôt mu am ay banque yoo xam ne taxaw nañu ni ñu loolu de bis bu fekkente ne am ngeen coopérative bi nee denc na cinq cent tonnes deux cent tonnes deux cent tonnes yi lii lay jaar jaar tey jii boo ko dugaloon ci marché bi ñun daal ñu yëkkati lu toll noonu ca xaalis ba ñu daal di leen ko jox bis bu ñu demee ba prix yi yokk ñu àndandoo ubbi chambre froide yi ñu jaay ko léegi ñoom ñu delloo ñu ñun banque la ñu leen joxoon te booba li ci des ñu jaay ko daal di koy séddoo wala boog seet ñoom lañ ciy am ak ñoo nit lañ ci am donc loolu mooy ay yoon yoo xamante ni ci ba tey jii ñoo ngi ci àndandoo di liggéey ak euh, le marché d'intérêt national ñoo ngi jéem a tabax tamit wala euh, réfectionner lépp loo xam ni mooy ay chambre froide yu fi amoon bokk na ci chambre froide yi nga xam ne ñoom ñoo nekk à l'agropole de Pâle boo ñëwee à Pane am na ay agropole la ñuy tuddee agropole de Pane boo xamante ni ay magasin yu mag nga fa ne ak ay chambre froide bu baax waaye dañu ko mel ni lu ko xaw a sàggane au niveau du Sénégal paysan nag daal di ci ab xaalis def ko ca ngir ñu liggéey ko ba tout récemment le ministre ci boppam xaw ma ndax penn boo àndoon ngeen am déet moom ci boppam dem na ko gis chambre froide yooyu waaye ba mu ko gisee ak oto ya fa ne ay muy ay oto frigo yoo xamante ni lépp dañ koo mel ni dañ koo bàyyi noonu donc muy yoo xamante ni si lu war a mën a jóg liggéey ci la léegi ñun nag bëgg a àndandoo ak direction horticulture ak baykat yi ak coopérative yi ne foofu ministre bi ni kon nañ ko jox baykat yi keroog ci comité de pilotage du projet paysan nga xam ne secrétaire général bi moom moo ko présider nee nañu ànd leen ak direction horticulture ngeen defar foofu ba mu baax ñu yëkkati ko teg ko ci loxol baykat yi mais encore faudrait-il que baykat yi seen bopp bu ñu leen ko joxee tamit ñu nangu ko gérer parce que bari na baykat boo xamante ni si mën naa ko tollu ne waaye saa boo ko ko joxee tey bul xam nu muy demee bari na lu leen yàgg jox ala kuliar dañuy mel ni euh, ni ñuy doxale yenn saa yi daal euh, lu jar xoolaat lay doon waaye daal ñun taxaw nañu pour àndandoo ak yéen ci jàppale leen ci wàll woowu ngir yombal euh, liggéey bi énergie dëgg la monsieur le euh, maire Pierre Pierre Zane ba mu juddoo la man du ma utiliser énergie fossile tépp koo xam ni yaa ngi utiliser euh, maanaam pompe à gasoil wala yu demee noonu dañuy bëgg nga teg ko fële ànd doom ñun ci solaire moo tax financement Pierre Zane yëpp solaire lay doon donc bu fekkoon seen yéen da ngeen saxaw ci àndandoo ñun tamit ci wàll woowu ñun pare nañu pour euh, jàppale leen parce que am na programme boo xam ni tàmbali nañ ko ñun ak waa ADMK association des producteurs de Kayar ñoom ren def nañu lu toll ci 14 millions de francs ci gasoil ñu leen nag ñun suñu sañoon 14 millions yii au ngeen def ko ci gasoil yi ànd leen ak ñun ñu seet ana ay euh, jaaykatu euh, moto pompe euh, solaire ñu àndandoog ñoom liggéeyandoog ñoom ngir ñu mën leen taxawal yéen ñëpp ay solaire comme ñi nga xam ni am na sax ñoo xam ne defal nañu leen ko foofu donc ngir fin jeexal ci liggéey bo waxtaan wi xëy na bari na sax ay questions yoo xamante ni ci daañu ci ñëwaat interprofession yi wax waxtaane nañ ko ak ndox mi interprofession Euh, boo seetee oñon nee nañu leen am na juróomi interprofession yoo xam ni seen xaalis mi ngi ci biir keesu projet paysan nous avons euh, toujours ñu woo leen nag oñon lañu gis ni moo ñëw ñu jox ko xaalisam mu dem luyee ci siège ay à Thiès pendant un an mu koy fay bokk na ci interprofession yi carotte pomme de terre

jàppale nit ñi ngir euh, fu ñu toll rek ñu mën a am ndox ba tax na bari na ay action yu ñuy def ngir jàppale leen ñu mën a gas ay mini forage bu fekkente ne tamit ay forage yu mag la xëy na projet paysan yoragul euh, xaalis boobu waaye teewul mën nañoo euh, waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy baykat yi ñu seet ana yan type de forage dañu leen mën a accompagner ngir ñu mën a Euh, gas loolu mais bu boobaa ci deuxième phase du projet paysan lay doon waaye première phase premier paysan am na ci juróom benn forage moom la ñu tuddee les forages de Beer Talan muy ay forage yoo xam ni dañ leen a gasoon après joxaat leen sax waa SDE waxuma waa Sen'Eau ñuy euh, brancher baykat yi di leen defal ay quota waaye bañ demee ba ci biir mu amoon quelques jafe-jafe muy Aly Ngouille mu ni waa PIEGAN nañu àndandoog béykat yi ñu jàppale leen ngir jafe-jafe yooyu ñu amoon ci forage biir Talaan ñu mën ko résoudre ngir ñu mën a ku ne amaat sa euh, euh, euh, disons sa subventionnement ak sa quota loolu muy liggéey boo xam ne ñu ngi ko àndandoo ak DEBRELA mooy direction bassin rétention lac artificiel nga xamante ni si moom it mi ngi ministère de l' agriculture ñoom ñu def benn liggéey bu am solo ci wàll woowu léegi ñu nekk ci yoon wi ngir fexe ba euh, àndandoo ak SONES ak SEN'EAU euh, ñu euh, fexe ba béykat yi ñu mën a ñu wële leen lu wutalaat ay branchement donc liggéey boobu ñu ñu ngi ci donc lii daal mooy li nga xamante ni si bëggoon naa di ko leeral ko jox quelque euh, disons euh, yenn leeral yi euh, xañ na du lépp la ñu mën a leeral sax waaye teewul débat yi saa boo xamante ni si piesan mu ngi organisé ak lu mënti doon ubbeeku nañu ngeen àndandoog yéen waxtaan ak yéen ci lépp loo xam ni day doon du jëmale horticulture bi kanam ngir e, di terminer rek e, leeral e, xañ na question bu madame Soxna Mbow posé woon ci wàllu zone des Niayes boo gisee Sénégal dañ koo daggate en six zone éco-géographiques noonu la ko état du Sénégal daggate benn bi nag mooy zone des Niayes am na ci boo xam ni moom la ñu tuddee la vallée du fleuve Sénégal am na boo xam ni moom la ñu tuddee la zone agro silvo pastoral am na boo xam ne moom la ñu tuddee le bassin arachidier am na boo xam ni moom lañu tuddee la zone euh, casamançaise ci au sud de Casamance am boo xam ni la zone est donc loolu mooy zone zones agroécologiques yoo xam ne bu ci nekk xam nañu limite yëpp ak na mu toll ak la ca bokk ak la ca bokkul te loolu muy liggéey boo xamante ni fii euh, ba léegi amagul coppite waaye euh, mooy li nga xam ni moom la ñu dakase woon Sénégal jërë ngeen